su ngeen ko deful li ngeen defoon ci yiw fa lay noppi rek. macha allah oustaz euh, ba tey day ñëw ci guerre bi bi nga xamante ni Ukraine la ak Russie euh, euh, bërki démb ministre des affaires étrangères convoqué ko woon ambassadeur Ukraine bi di xamal que ni dafa bëggoon te fii nii ay sénégalais yu dem bokk ca geer ba ñu mu xamal nañu tamit am na 36 sénégalais yi nga xamante ni demoon nañ bind ju oustaz loolu moom nan la mën a demee sénégalais yi dem ba Russie bëgg fa dem guerre. ah ñoo xam moom kay bu ñu bëggee dem guerre nañ dem loolu <laughs> kay xaw ma ci daara dañoo ñeme rek mm-hmm. bëgg nañ guerre nañ dem guerre la tax ñu def kook lañ ca yéeneeg yépp duma ci wax parce que xaw ma ko waaye daal bëgg nañu guerre daal xam naa ne moom ay fetal fa mm-hmm. ay dee nga fa ay lu nekk nga fa nañ dem rek mm-hmm. ah ministre bi dem na est-ce que wóoru naa dem moom ministre bi na dem ministre bi na dem ah du dem ànd ak ñoom ñoom ne bindu nañu ne dañuy dem ñeneen bind nañ ne dañuy dem wax naa ak moom ne dañuy wut ñu leen bëgg a jàppale nangam nangam nañ ko def. man ma ne ma ne du ñoom ñeme nañ ko bëgg nañ ko wóolu nañ ko nañ leen dem nañ leen bàyyi ñu dem nañ leen bàyyi ñu dem bi gàm bi amee de demuñu. lu ne xew na fi defu defuñu ci suñ ko ñemee am nañu fit njàmbaar lañu nañu dem waaye nag dem gi nag nañ xam ne nañuy dem rek waaye dem dikk moom yàlla xam waaye dem moom demal soo fa desee yaa xam waaye nag yéene ji lañuy ñuy seet su fekkee yéene ji dimbali leen rek la waaye nag naka lañuy naka la Macky Sall jiite eh, xawma ma africain xaw ma lan mais mais mais njabootam di jéng jëm fe moom kay ne neutre njaboot yi mu am mu ne leen dal leen mbir mi dañ koy toppatoo waaye yow ñu jiital la nga nga ànd kee bàyyi kee ba pare ne dangaa neutre sa njaboot di dem ah buñ ñemee nag ñu dem man de dew ma man dew ma yónniwu ma ànduma kuy dem seetiwu ma man daal fu ay bal ne merci beaucoup man daal li ma xam wax ba bal dañ mais di yokki bal duma ko def duma ko def mukk mukk mukk la la lalu ci suuf nag kenn xamu ko waaw la lalu ci suuf daal mu ngoog waaye yéene ji daal su dee yàlla rek rek rek rek rek rek a tax yàlla rek a ah, ba tey baax na waaye nag la lalu ci suuf daal kenn xamu ko loolaa mat a jeex nag loolaa mat a jeex parce que moom daal mu ngoog rek mu ngi noonu daal nañ ko seet nañ seet ak ñoom rek gannaaw dañoo bëgg a dem a ah, ci yoonu waa ngoog bëgg fa dem guerre ah, ñoo xam moom kay buñ bëggee dem guerre nañ dem loolu <laughs> kay ma ci daara dañoo ñeme rek bëgg nañ guerre nañ dem guerre la tax ñu def kook lañ ca yéeneeg yépp duma ci wax parce que xaw ma ko waaye daal bëgg na ñoom guerre daal xam naa ne moom ay fetala nga fa ay dee nga fa ay lu nekk nga fa nañ dem rek ah ministre bi dem na est-ce que waru naa dem moom ministre bi na dem ministre bi na dem ah du dem ànd ak ñoom ñoom ne bindu nañu ne dañuy dem ñeneen bindu nañ ne dañuy dem wax naa ak moom ne dañu wut ñu leen bëgg a jàppale nangam nangam nañ ko def. man ma ne ma ne du ñoom ñeme nañ ko bëgg nañ ko wóolu nañ ko nañ leen dem nañ leen bàyyi ñu dem nañ leen bàyyi ñu dem bi gàm bi amee de demuñu lu ne xew na fi def defuñu ci suñ ko ñemee am nañu fit njàmbaar lañu nañu dem waaye nag dem gi nag nañ xam ne nañuy dem rek waaye dem dikk moom yàlla xam waaye dem moom demal soo fa desee yaa xam waaye nag yéene ji lañuy ñuy seet su fekkee yéene ji dimbali leen rek la waaye nag naka lañuy naka la Macky Sall jiite xaw ma africain xaw ma lan mais mais mais njabootam di jéng jëm fe moom kay na neutre njaboot yi mu am mu ne leen dal leen mbir mi dañ koy toppatoo waaye yow ñu jiital la nga nga ànd ak kee bàyyi ba pare ne dangaa neutre sa njaboot di dem a ah, bu ñemee nag ñu dem man de dew ma man dew ma yónnewu ma ànduma kuy dem seetiwu ma man daal fu ay bal ne merci beaucoup man daal li ma xam wax ba bal dañ mais di yokki bal duma ko def duma ko def mukk mukk mukk la la lalu ci suuf nag kenn xamu ko waaw la lalu ci suuf daal mu ngoog waaye yéene ji daal su dee yàlla rek rek rek rek rek rek a tax yàlla a ah, ba tey baax na waaye nag la lalu ci suuf daal kenn xamu ko loolaa mat a jeex nag loolaa mat a jeex parce que moom daal mu ngoog rek mu ngi noonu daal nañ ko seet nañ seet ak ñoom rek gannaaw dañoo bëgg a dem a ci yoonu waa